def mbokk yi ñuy topp ci Leewtoo TV kontaan nañ ci yéen di leen ziar bu baax a baax tey nag ñu ngi fii ci Caaroy seet si le grand champion Reug Reug gannaaw ba mu jógee États-Unis d'Amérique mbër ñi ngi laa ziar. ziar nañ la bu baax. waa maa ngi delloo ziar di wax auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw bu ñu sante yàlla julli Yonent bi ñu ngi ñaanal sunu papa ak sunu tante yàlla na leen yàlla xaare àjjana firdawsi di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg waaw. mbër ñu gis la nga jógee États-Unis d'Amérique namoon nga Sénégal. waaw namoon naa Sénégal nag waaw ndax fii laa jógee. dem États-Unis dem entre nañ ba pare préparé dem Singapour. Mhm. ñibbisiwaat États-Unis. Mhm. non doog a ñëwaat Sénégal. États-Unis ak Sénégal lu dàq. non. lu ma daaxal ah. waaw non. <laughs> Sénégal Sénégal neex na de. Sénégal neex na de. Sénégal ma daaxal. senegal neex na de. <laughs> waaw ndax foofu fii da ngay am ambiance da ngay waxtaan ak sa famille. Mhm. fee xam nga da ngay dem pour liggéey entraîner ñëw tëdd sa kër. ñu dañuy liggéey. Mhm. waaw. Mhm. waaw di nuyu ku si sama tata As Touré. ah gis naa niñ ma taxawoo waaw. Sénégalais yëpp doon la bàyyi xel mi nga nekkee États-Unis nga nekkoon ci préparation combat bu rëy sa diggante ak Allé Ngalani Sénégalais yëpp doon la ñaanal tamit suñ borom génne la ci ak ndam gannaaw ba nga ci génnee ak ndam ñu bëgg nu ñëwaat ci combat bi préparation bi naka la demee woon waajtaay waaw comme li may wax rek euh, Reug Reug amul ndam Sénégal moo am ndam ndax Sénégal laa teewloon waaw biñ may waxuñu euh, Reug Reug dañ Sénégal doo ko wax sama tur sama ma la expliqué kon ñun euh, ak nu mu mënti demee rek ñun ndam lañuy indi ndax doonu c'est la première fois la teewal Sénégal doon naa ko def di dem samp euh, drapeau CEDEAO ah dem euh, Niger francophonie mhm. kon xam nga doonul tey quoi. waaw mhm. yàgg na. Mhm. waaw mais nag lépp dañ ci sant yàlla. xam ne yàlla suñu borom moom moo ñu ko jagleel. waaw yàlla suñu borom moo waxoon dinañ aw fi wàccaay combat bi pare nañ ko comme ni ñuy pare yeneen combat rek. ndax boo xoolee ndeysaan mooy li may wax rek waa Sénégal dañ ma xaw a dañ ma ñeental quoi. ndax boo xoolee ñu ngi naan kii naa ka sës. naa naa xeex ak moom maanaam. combat rapproché man soxlaw ma lool. li ma soxla mooy moom lu mu liggéey ma liggéey si kawam loolu laa soxla woon. mais xamoon nga ko xam non bi ma koy jël xaw ma ko woon mais bi ma koy jëlee ñaari film ñaari vidéo laa seetaan moom seetaatal moom si moom xam na ne kii maa ko mën. Mhm. noonu la demee nga ñaari vidéo am nga xam naa si xolaatuma leneen si moom. mais ñun nag sénégalais yi ñun. vidéo yi ñu doon won waaw vidéo yu yi gën a yi gën a yi gën a garaaw ci ay vidéo muy mhm. weq gauche weq droite wax naa ko suñ benn revue. Mhm. nee naa Alé Ngalé ni li taxoon ñun ñu gën ñu gënoon ko bàyyi xel. Mhm. vidéo yi ñu doon won mooy vidéo yi gënoon a garaaw ci moom. muy weq gauche weq droite. loxo yi neex tànk yi neex. ñëpp ne Reug Reug am na problème loolu dafa la woon dara. non dafa ma woon dara ndax ko xam Reug Reug moom xam na ni maanaam moom day liggéey. fontuwul. waaw li nga wax noonu moo am tànk yi dafa neex ñi mën a entraînement professionnel la ku doon champion quatre fois muy taay di monde doon tamit kin box yu deux ans kon kooku du cuune xam na mu la expliqué mais ñun gëm nañ maanaam sénégalais yi gëm nañ moom ku mu doon mais man gëwma loolu yow gëmoo li mu doon non lu tax ndax maa ngi moom ñoo am faay bu ma demee bay xool si moom loo xam ne moom moom la doon rek bu boobaa man damaa indil faible man ku may xeexal rek ku may xeexal rek damay gëm ni maa la man te lu ma liggéey li ma li ma euh, li ma liggéey si li ma entraîné bu ma ñëwee dama kay tari si combat bi. ñëwalaat ñu ci combat bi. waaw combat bi gis ngeen ni mu demee. combat bi dama kaa bàyyi euh, ñu xe ñu xaw a dóorantey tànk. xam nga nu ma lay expliqué. léegi ma bàyyi ko deux deux yoo xam ne moom jéemul def dara day dóor tànk bu dóori tànk man dama koy génne. ma comme que noonu la nag ki oo naa ko si liyam lu ma bëggoon defu ko ma ma indi li ma. nga andi li nga li ma indi li ma rek def ka mm-hmm. waaw mm-hmm. yàlla suñu borom may ñu ndam nag mais yàlla suñu borom moo ñu may ndam. Mm-hmm. yàlla mooy may mooy may ndam. ñu gis la bi nga bi nga ko daanee ba pare nga am bi nga ko yëkkate am mel ni da doon wax ak moom. waaw dañ doon wax ak moom di ko encouragé xam ne di waxal ne que nii maanaam moom moo ñu jiitu si affaire bi. xam nga loolu ñun fierté la ñun ñu bëri ku euh, ñëw sa deuxième combat rek ñu jox la ku mel noonu. kon kooku fierté la. di ko ñaanal yàlla sunu borom defal ko jàmm ndax yombul. waaw koo xam ne bu mooy deuxième combat nga ñëw rek dal si champion bu mel noonu. waaw loolu moom moom maanaam ab OFTM. ah ak gëm moom maanaam tey jii ki muy faytal nii champion. bu doon lambi Sénégal ñu ne daf la may sance damaa may chance ok la même chose noonu la demee. waaw mais ñu ngi ko sant bu baax di ko gërëm. mi ngeen bëree ba pare ñu gis ngeen dajee ci benn piscine di waxtaan. waaw piscine boobu ku bi kan moo ko créé. non moom moo ndax euh, mooy li ma wax rek Reug Reug moom boo ko ñamee ba pare si ngay xam kan mooy Reug Reug di nga bëgg leneen si moom bu bokkul ak leneen. kon dafa am leneen lu mu moom laa lay wax moom laay expliqué nii bàyyi ma rek maa expliqué. voilà raa loolu nga wax noonu moom moo ko créé ndax bu ma jumul laytee ngi ñun sept nañu war a dem si foofu xam nga hôtel bi lépp nga fa sept heures nañu war a dem si si piscine bi foofu dafa am heure duñ fa fekkente. xam na ma expliqué mais moom bi bi ñu ñëwee ñun bi ñu ñëwee moom dafa jóge si liyam ñëw waxa ak euh, ki kay liiwal pour mu dimbali ko rek après ñu waxtaan quoi. Hmm. mu ne dama bëgg a éviter Hong Kong ak yooyu. Hmm. ñu mu gën maa woon affaire yeeg yooyu ma ne ko amul problème. Hmm. loolu rek laa ko mën a wax amul problème. waaw kon kon kon mais da nga ne dafa am leneen lu mu bëgg ci yow lu mel. non boo déggee mooy maanaam xam nga ñam na ma. xam na man. ban capa xam na man ban capacité laa am. xam na man fu ma war a bu ma jàmm ak salaam mayee rek xam na man fu ma war a egg si si MMA bi. Mhm. wax na ko boppam. Mhm. ye xëj na nag loolu la gis moo tax. gis ñu gis ñu mhm. yaa ngi préparé sa beneen combat. si diggante benn brésilien bu ñuy wax Almeida. noo koy waajal. waaw ñu ngi koy waaj rek di si oo tamit sénégal yëpp. di si oo montu Sénégal. ak surtout sama mbokki mbër yi. Hmm, maa ngi leen siy oo. nañ ñaanal seen doom xam ne doomu Sénégal mooy dem xeexiwaat waaw si kàttanu suñu borom ndam rek incha allah. ndam rek incha allah waaw. bi mu la waxee loolu gëm nga ma lu ma lu may gëm ak maa la posé question non bi mu waxee loolu yaa nga foon. n'est-ce foon sa caméra mu nga foon. bu ma juumalee. waaw est ñoom bi ngeen ko waxee yéen gëm ngeen ko. mais bi mu waxee loolu lu mu def ci yow. non deful si man dara ndax man amaguma temps xam nga lu ma am temps instant bi sama moment bii di ñëwaat ni laa am temps mais guy gi amaguma temps bu ma amee temps rek boo ñëwee nañ ci waxtaan dégg incha allah. lu tax amagoo amagoo non amaguma ka amaguma ka. Mm. waaw moom na féetewoo wax ji. Mm-hmm. man mu bàyyi maak ak jëf li mm-hmm. mais bu yaakaar ne maanaam. rër rek dafa laa déglu bu yaakaar ne rër rek maanaam ay wax nga ko mën a daane wala ay wax nga ko mën a jaxaseeg adduna. yaa ngi nax sa bopp dama liggéey. moo gën loo daane rëg rek moo gën. man talu ma koy sang bi maa ngi tal sama MMA di ñëw ni incha allah. jaajëf kontaan naa ko grand frère jaajëf jaajëf. waaw mère. yàlla tawee ba léegi maa ngi fi damaa demoon kees. ah kañ nga ñëw. ñëw naa biig ci guddi. yaay jëm ña. dëgg la dëgg la. baal sama yére. baal sama yére moo tax waaw baal sama yére. baal sama yére mooy si biir dara. oto bi yaa ngi dégg. léegi day laaj ne oto bi day tàkk. waaw. day mel ni taxaw bu baax. xam nga ni problème bi. bu dee ngi taxaw ak Cheikh bu rëg-rëg Cheikh nekkatul ku ñuy présenté ci encadrement rëg-rëg mbër bëggee nan la. waaw ñu ngi ziar di nuyu waa senegal yëpp di sant suñu sëriñ Seexuna Ahmadal Xadim haadalaahu loxo mataara loxo di nuyu waa Sénégal yëpp ku si nekk sa tur ak sa sant. ngeen jógee ci combat bu mag seen diggante ak Ngalani. waaw sant yàlla rek jóge si combat bu mag suñu borom may ñu si ndam ñu ngi sant bu baax a baax a baax ndax mënoon nañu see may leneen te kon tamit duñ xaru duñ def dara dañuy continuer suñu dund xam nga. ndegam may nañu si ndam nag ñu ngi ko ciy sant bu baax di sant waa Sénégal parce que olof daf na moom peccum liir bu neexee nday a jege. kon ñoom doon nañ suñuy nday jàppale nañ ñu bu baax a baax a baax ñaanal ñu. ku nekk fa nga nekk ñu ngi la fay fekk di la sant cant koo xam ne am na fu mu commencé mais amul fu te ñu leen jege lañ xam nga di def si ñun motivation bu doy waar loolu moo tax moom xam nga chaque jour mbopat sax même niñ lañ ñuy teeroo buñ ñëwee ñëppay kontaan xam nga ñaani di yokku wax dëgg neex yàlla ñoom amuñu seen fay bu dee àqu dëkkandoo rek maanaam ñoom matal nañ ko suñ digg ak ñoom. mbër nekk ci yeneen contrat xam nañ ne dese na yeneen trois combats wala quatre noo leen koy waajale waaw waaj rek comme d'habitude parce que ñun tamit suñ borom mooñaalee nañu loo xam ne. Hmm. maanaam buñ defee dara rek. Hmm. dañuy fàttalool jéem a nekk si leneen. Hmm. waaw di ñaan yàlla nag li ñuy nekk yal nañ suñu borom di defal sutura chaque jour. amiin ba pare ngeen nekk ci beneen contrat contrat guy gi ñu gis démb mu wax wax ju suñ digg ak guy gi moom loolu amuñu luñ siy wax. mais daal maa ngi koy wax ne ndegam copain moo gét la bu moo gét di ñëw moom bu mu bàyyi xaalikit ginnaaw ndax damay ragal avance bi ñoom si stade ba lañ koy delloo. te xam nga ñoom dañoo tàmm baatare. Mm. <laughs> waaw xam naa nag foofu la ñuy baatare avance bi delloo ko. mais nee na bu jàppee rek mu jeex de. non xam guy gi moom lenn day des si moom moom bu ko neexee bira seen seen président CNG bu bees bi ñu ngi koy nuyu au passage. Mm-hmm. xam nga mu mu defal ñu faayit boo xam ne maanaam. premier round bi yëpp dañ koy xeex. ah waaw te gëm naa ne buñ buñ xeexee premier round bi duñ ci génn ndax xam naa ne moom premier round fa lay yem làmb ji moom nañ jàpp ne xeex la rek du am bëre. waaw lool moom day des si moom ko loolu ci ci moom la des. si moom la des waaw. jaajëf mbër su ko buggee loolu moom ah. moom jarul mu siy tàggu kenn man am naa sañ-sañu dem signé lool reliquat rek. waaw moom bu ko mënee na ko door mu daanu moom xam ne buñ ko mënee dañ koy rey duñ ko daan koy rey. di rey kan guy gi. noo lañ koy def. suñ ko moom laa mu dem CNG ñun ñëpp ñu dem CNG signé loolu rek du ko signé de man maa koy signé ñu signé première fight bi. mu doon corps à amul amul amul jàppante amul dara. bu bu deuxième round bi jotee bu fekkee ne àgg nañ fa moom mu mu jël liñ ko may. waaw su mënee rek nag moom na ko dóor mu daanu te xam na ñun buñ ko mënee dañ koy rey. doo ko may dara. dara lañ ko dul may.